dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yi wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. ah tey le 2 octobre lañ ubbi ñun personnel administratif bi le cinq les élèves yi war a ñëw mais d'ici là ah ñu ngi def notre travail en ce qui concerne l'administration institution yi comme ni ma ko waxoon léegi. door nañ ko depuis après Magal ba léegi ñu ngi def inscription chaque jour que j'ai fait te ñu ngi continuer di ko def aussitôt léegi nag ñu ngi ñëw di xaar fii emploi temps yi yi professeur yi war a ñëw déposer pour ñu mën a entamer l' année scolaire ñu ngi commencé ñëw ñu ngi ko commencé étudier je crois que dans le courant du mois de octobre au plus tard d'ici le quinze les travaux les activités vont démarrer incha allah en tout cas ñu doon bëgg daal léegi nag boobaa booba ah gis nga ko administration baa ngi def ngi ku daal li nga def li nga def li nga yaa ngi def li la war ñu ngi def ñu ngi def son notre travail le cinq bu élève bi ñëwee da bëgg noon def comment dire li ñuy wax ubbi tey jàng tey bu doon benn classe sax wala ñaar dinañ ko essayer fonctionner ab bu professeur ñëwut aussi administration un membre de l'administration mën naa dugg tenir les élèves def leen benn ku ah ba fexe ba contexte ubbi tey jàng tey comme que noonu ko daan paree def daaw année yëpp ñu ëpp essayé koo def à de cinq. waaw ñun nag ñun perturbation ñun bon je ne pas dana am xëy na peut être les autres mais au niveau de Pape de Grâce bu perturbation amee comme daaw nu ma aussi bon élèves dem ba am conscience comme quoi daal dem di ko déranger génne élèves yooyu ça ne parce que moom moom école privée la tudd public bi xëy ko def mais privé nga xam moom sa dooma nga fa sa rakka nga nga fa ñëw di fay pour jàng kooku war nga ko épargner bon ni ngi yan yàlla nag. dara perturbation mën a am zéro mais dans tous les cas ñun dañuy duñ am yenn problème yi ba nga xam daal dañuy perturbé dañ daan jàng comme dépôt allah on touche du bois aussi ñu ngi ñaan yàlla daal benn perturbation mën a am dans l' ensemble nag de tous les élèves que ce soit le public et comme ça ñu ñëpp mën ko bénéficier parce que comme que école ubbi na je crois que njàng daal moo a des waaw élève bi de comme ni leen wax rek maanaam école bu xasee ubbi jàng moo yaa ou nga def le bac même bu fekkee yaa ngi ci petite classe sax sixième cinquième quatrième seconde première da war a jàng parce que tu as de bons professeurs ah qui lycée qui viennent de Diourbel tu es bien encadré par les professeurs et par l'administration donc jàng moo des je crois que examen yi jàll bi di bac ak BFEM gis ngeen bi ngeen dugg léegi à gauche il y a un tableau bu ñu wér kooku sont les lauréats ñi nga xam ne ils sont admissibles ils sont admis au bac et au BFEM ñi am mention ak am na ci sax ay élèves yoo xam ne am nañ admis examen professionnel am na ci benn élève boo xam ne admis trois examen ak yooyu donc loolu lépp njàng ko waral waaw njàng daal je crois que lii di école bi mooy travail discipline réussite parce que il faut nga liggéey avec de la discipline pour réussir parce que ñaari facteurs yooyu bu ci benn manqué rek réussite du mën am donc da ngay jàng ak discipline pour réussir waaw jàngalekat yi aussi comme nga ko daan defee rek on en parce que seen expérience tax ñuy ñëw di jàngale ak seen professionnalisme ak seen disponibilité waaw je le temps daal ñu ngi collaborer ak ñoom bi ñu ngi jàng di jàng comme di ñëw à l'heure di liggéey def seen liggéey comme commune bi administration aussi topp leen parce que administration bu ci àndut ah, njàng mi xëy na mën naa sooxe mais administration di topp waaw ah responsable euh, de classe bu nekk am na classe bu ñu ko jox donc léegi da ngay nekk en collaboration avec le professeur pour jàng mën a dox waaw loolu daal yaakaar naa daal bu ñu ci duggee jàmm daal je crois que l'année daal tout chaud du bois di ñaan yàlla daal dugg ci jàmm gën ci jàmm incha allah. dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen.